salaamaaleykum mbokk internet yi ñuy bàyyi xel ci seen site bu am solo bi sene info point net ak suñu seen YouTube bi sene info international suñu différentes plateformes yi nga xam ne saa su nekk yéen ñu si euh, teewlu ñu ngi leen di jaajëfal ci teewlu boobu bu baax a baax euh, tey nag euh, ñu leen di dalal ci seen émission boo xam ne jotaayu diine la di si waxtaan nag ak kii di wuyoo Cheikh Ndiaye Sow nekk taalibe Cheikh Adjuma Ba. Euh, dëkk fële ca Guet Ardo ñu fas yéene nag waxtaan ak moom mu fas yéene ñoo xamlanteel nag kan mooy jëmmu lislaam boobu nga xam ne kon moom mooy euh, Cheikh El Hadji euh, Aljuma Ba bala muy sori rek kon dama koy bàyyi moom Cheikh Ndiaye Sow mu nuyonteeg ñi nga xam ne moom mooy mbokk yi. auzu billahi samid alim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu wa sallam ala asrafi alxalq li muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashhabihi wa man tabiahum bi ihsani ila yawmi din rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mboolem waa àddina may nuyoo tey ziyaar képp ku jant yàlla bii di wowal sa pët ak fépp foo mën a faree ci àddina bi ngay kenn ci waa kër Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala nga faree ci weneen diini bu mu mën maa ngi leen nuyu di ziar di la ñaanal sutura barki na ma ki manoore di ko jaaree ci plateforme bi nga xamante ne moom mooy seen info am na ko ak ay nit ñu xarañ ñoo nga xamante ne si ñoom ñoo ko dékkee booba léegi ñu leen dëgtal ay information yu yu dégg Euh, alxaaji Ndofène juuf mi nga xamante ne si moom la ñu àndal ci plateau bi war a waxtaanee euh, l'islam en général. Mm-hmm. waaye ci biir l'islam boobu ñu sëpp ci kenn ki nga xamante ne si ci kenn yi nga xaman ñoom ñoo téye l'islam bi ba fi rasulullah génnee àddina ak léegi kenn ak ñoom la leen bëgg a jukki muy ko tedd ki alxaaji Cheikh Aldiouma Ba. Mm-hmm. mu dëkkee ci dëkk bu ñu wax gett ànd comme ni nga ko waxee trentaine de kilomètres à Louga muy yàlla boo nga xamante ne si mboolem. la yàlla tere woon kenn mus ko cee fekk kenn mus ko cee gis waaye lépp lu yàlla digle woon donte na mënee sota def lépp itam la ko ca waroon képp lan kattanam def na ko ci ba jour ba muy jóge fii di génn àddina bu te na alquran a ngi wàcc mën naa la seeral ne aay ba wàccoon ci rasulullah eh, ci mujj dundam bu doon alquran a ngi doon wàcc ci jamono dina wàcc ci moom mooy al yawma akmaltu lakum diinakum wa akmantu al yawma akmaltu lakum diinakum wa akmantu alaykum ni'mati wa radit lakum islaama diina bu fekkoon te ne alxuraan bi doon wàcc ci jamonoom mën naa la ne aay bi dina wàcc ci moom ngir matal gi mu matale woon euh, euh, dëgg-dëgg ponk lislaam gi ci biir njaboot gi ko yàlla dénkoon alhaji Cheikh Aliou boo ñu mënee ñëwalaat ci ci ci ndawam tuuti ndawam ak euh, jàngam ak yooyu jaar-jaaram. ten tedd gi alhaji Cheikh Aliou moom mu ngi génne àddina ci dëkk boo ma la wax ci Guet Ardo. 1862 mhm. la génne àddina ci dëkk boobu. Mhm. boo xaymaa ci ay at muy quatre-vingt-quatre ans quatre-vingt-quatre ans euh, boo ko boo xaymaa ci ay at mën ngaa jàpp lu bëri la boo ko tënkee ci dundu doomu aadama ak ni bëgg-bëgg yi di bëree ak ni soxla yi bëree ak ni jamono di jaxasoo yi léegoo léeg mun nga koo jàppee lu néew ci suñu jamono waaye la bëri mooy quatre-vingt-quatre ans yu néew yooyu mille huit cent soixante ba neuf ba trente septembre cent quarante-six mhm. ku tedd gi génn àddina mhm. boo xoolee depuis dix neuf cent quarante-six ba fii ñu toog ñaata at a ci toppaat pourquoi toujours tur bi di fëlate toujours mu ngi mel ni moom mu ngi ak ñun ci euh, la tax ma ma limal la jour yeeg semaine yeeg weer yeeg at mi li ma ci bëgg tënk mooy bari waan na ko fi dund cent ans wala cent cent et quelque te ba mu jour ba mu génnee àddina la dee. ndax nañ ko fàtte. waaw maanaam war ngaa mën a góorgóorlu ba bu la yàlla may nga dund ba mesure feek nit a ngi dox ci kaw suuf waratoo dee génn àddina dem suuli la te ki wul ne dee nga te tey boo demee dëkk bu ñuy wax ku ci mel ne Kaolack. Mhm. Cheikh Ibrahima Niass yi taala anhu boo boo duggee ci dëkk bi da ngay foog ne boo demee kër wala ci kër eh, alxaaji Maay Ñas may xalifa ba da nga fay fekk ku tedd ki Cheikh Ibrahim hmm. boo demee Touba kazalik boo demee Tiwaawoon kazalik te mag ñooñu tekkiwul ne ba ñu dund ci jamono ñoom kes ñoo fi nekkoon fii lañu nekkoon nekkandoo fi ak seen ay morom hmm. waaye ñooñu kenn déggatul seen tur ndaxte dañoo dee waaye ñii nag deewul la tax ñoom deewul may la yàlla newoon nañ ca ne ci lañ newoon hmm. ba ñu dundee lañu ñu ba ñu génn ñi àddina la ñu dund ku tedd ki Alaaji Cheikh Abdou Juma comme ni nga laaja ndaw Mm-hmm. nit la woon ko nga xamante ne si pël yi dañ koy dañ koy daqantale bajj kumba jaay bajj kumba jaay mooy benn benn doom bu góor ci waajuram bu jigéen ak waajuram bu góor cappaacoli cappaacoli te muy pël ku xam pël xam lañu aadoo mooy càmm càmm aku mbéy moom mooy moom mooy moom mooy aaday pël mm-hmm. ba mu juddoo fekk waajuram bu góor am ay nag am ay jur ay xara ji muy benn bu góor bu juddoo ba majeur la mu war def mooy sàmmi ci liñ xam waajuram bu góor ne dafa war a sàmmi ndax xar yi amul ku leen di sàmm waajuram bu jigéen ne teen koo jàngal alxuraan am mhm. ko benn la mhm. euh, ñaari kàddu yi boo déggee ku góor kii ne nii ku jigéen kii ne nii bu sa xel gàttee amaana nga foog ne dañoo wéranti wala dañoo xëccoo déedéet waaye mboolem ku yàlla mos a yebal jamono rek ci sa ci sa ndorteel dafay am ay message mhm. yuy wane la nga war a dooni ëllëg participation kii lii la ci woon maanaam bu ñoom ñëpp ñu àndoon ne na jàngi alxuraan mhm. du du du am beneen du am mhm. beneen expérience ah. bu kii nee na defi nii kii nee na defi nii à l'âge mu nangu leen ñoom ñaar ñëpp mu ne papa dinaa dem sàmmi ngir topp bi mu war topp ndigal waajuram mu ne yaay dinaa dem jàngi ngir topp bi mu war a topp ndigal waajuram waaye càmm geeg mbéy geeg jàng gi benn soo xewu ci réussite totale la ci am ci ñett yëpp mu boole jàng alxuraan bu xëyee jaar ci benn sëriñ soriwul dati addu dara mhm. fu ñu wax rundee mu jël fa mbind jël allo bi gàddu bidongam cee yetam euh, jiital nag yeeg mbéyee xar mu dem sànni béy yi du ñu ruur du ñu bisi am nag yi benn bu ñëwut ci bu ñu bisee dina mokkal mbind mi. incha allah wa anna al fadla bi yadihi llah yu'tiihi man yashaa wallaahu li fadlil azim mm-hmm. lii muy ngeneel wa nga xamante ne yàlla moo ko dëxiñ ci moom laataa muy ñëw jamono ba ñëwee jamono mu war a mën a feeñal loolu ndax xam nga ne à l'âge de ku ci mën a def lool nga boole jàng alquran ak sàmm ay xar sàmm ay béy ci ay tool yoo nga xamante ni sori ñu dara dëkk bi boo génnee dëkk bi jëm ci tool yi nag yi bëri yool xar yi bëri lool béy yi bëri yool te benn béykat mësta wommat ay xaram wala ay béyam indiwaat ko ci kër gi ne waajuram góor waajuram jigéen lii dafa ruuf sama sama tool nga xam ne moom moo doon dem waaye yàllaa moom moo doon jàng waaye arrahmaan allama alquran xalaq linsan allamahul bayaan yàlla mooy xamal ko ko sopp macha allah am na solo kon nag mm-hmm. nga xam ne daal nii la la ko tedd ki defee ndawam euh, mu jaar ci ay sëriñu daara yu bëree bëri te wax naa la ko euh, ñëpp mën nañu ànd dem daara waaye ña xam yàlla leen di sëppil boppam Mm-hmm. moom nag mu bokkoon ci yàlla teeloon programme yi ndaxte tund wam ñëw di Guet Ardo wax naa la ko ñu ngi ko créé en mille cinq cent quarante cinq du dëkk bu du dëkk bu bërki démb dëkk bu bu yàgg lool ci biir réew mi a dix à dix neuf cent quarante mille huit cent cinq lañ créé dëkk bi euh, mu fekk fa ceddu nag ku tëdd ki fekk fa ceddu fekk fa lënd mu ñuul kut ko waaye li muy wax toujours mu yore benn yet euh, yet bi moo doon yoxrusuhum mina zulumaati ila nur mu yore aw wet bu ñu tuddee leer mu xuus ñaaj jéeg yi dox fekk nit ñi ci biir lëndëm bi ommat leen ñoom ñëpp mu tàbbi ci leer gi lii moo doon muy euh, ko nga xamante ne mboolem sëriñu daara bu nekkee woon ci tund woowu jamono boobu mm-hmm. ku tedd bi boof sa kanam sax ku xam-xam as néew la la yàlla xamal waaye nag du yàq nag te sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ne si moom mooy référence addina bi képp ku yàlla sàkk mu sàkkee ko ci barkeem teewul ba mu ñëwee yàlla dafa ko ne millat abikum ibrahim wa sammakum muslimin maanaam toppal ci sa yoonu baay ibrahim maanaam liñ ci liñ ci li ci di jàngale mooy sëriñ mënu ñàkk la ci ku bëgg dem ci yàlla ala kulli xaalin nga am yoon waaye rasulullah buñ demee bañ ko naan tegtal ne jaaral ci yoon wii te moom moo waral yoon yi loolu xam nga ne am njàngale la ci boroom xel yi ku tedd ki jaar ci mboolem sëriñ daal bu ñekkee woon tund woon euh, sax ku yow xam-xam euh, ba mu ñu teere seeti ku tedd ku ñuy wax seen sa saadu abihi radiyallahu taala anhu digganteem ak seen sa saadu sa saadu abihi nag defe naa ne buñ ko ba bëggee boole li ñuy waxtaane dafay jël temps de toog loolu beneen waxtaan lay doon ñu def loolu waxtaan diggante alhaji cheikh aljuma ba ak seexuna seex saadu abihi radiyallahu taala anhu mm-hmm. bu ñu ñëwaatee ci maanaam euh, taxawaayam ak ci ak ci dëkk boobu nga xam ne moom mooy moom mooy Get euh, Ardo euh, taxawaayam ci wàllum diine ah, ak it bëggoon naa xam ndax moom dafa am ci këru diine euh, bu mu jokk wala yoonu boppam la yoonu boppam la la la tëraloon. alxaaji Cheikh Aljuma ba mu ñëwee ci dëkk boobu wax naa la ko dëkk bu mu fekk caddu la dëkk bu dëkk bu ñuuloon kooku la. dëkk bu leer nekkutoon dëkk ju lislaam nekkutoon waa juróom bu góor moo fa nekkoon yore fa daara bu ñu wax Demba Isma bu ñu yàqu papam doon nab nabi ci as tuut ci ndaw yi comme ni ngay gisee léeg-léeg fii ci biir Dakar am na yenn quartier nga xam ne boo fa demee da fekk benn mag bu pël li ci ëpp ci ñoom lay doon ko nga xamante ni bëgg na lool xam ñi jàng waaye léegoo léeg dañu dem jàngi école bu ñibbisee bu ñu bëggee indi ci buru kër gi ñu dàq la dem daara mm. comme genre jàngal yu ndaw yooyu daal nga xam ne yow mi jàngal yow yaay sonn pour nit ñëw jàng waaye ñi jàng si ak ñi leen war a indi jàng si farlu bi war a farlu ci njàngam bi duñ ko am duñ mhm. euh, ko am papam boobu nekkoon fa di nat na bi ci lool waaye ku tedd ci moom ba mu ñëwee comme que daa boole ñett daa boole am xam-xam boole ci yaru ba mu jaaxaal ñu dëkkal boole ci itam euh, euh, loxo yàlla bi ci boppam ndaxte waliyu yàlla yàlla nee ñoom seeni mbir muy samay mbir man sama ay mbir muy seeni mbir te nag waliyu yàlla ay waliyu yàlla ni moom ñu jamono seere si waliyu yàlla ñoom ñoo koy seere pour loolu mën a déggu lakin awliya allahu laa xawfun alayhim wa lahum yahzanun te ku tedd ki alaaji ak Seexul Xadim si Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul am ay mbind am ay seere yu wuute mu doxoon seen diggante mm-hmm. ba histoire bu yaatu am seen diggante ñoom ñaar génnu àdduna alaaji Cheikh Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul ku tedd ki def ci def ci ak njaal wu siiwoon lool nga xam ne ba gannaaw ba fi Seexul Xadim ba mu am ñetti at la ko tedd gi soo jaxle si ñaal moomu nag mu bëri loolu histoire bu ca bu ca borom xam-xam yi wax euh, euh, ba tax na euh, la Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul doon utiliser ci dundam. Mm-hmm. la ko ca ginoon ñor ku tedd kooku moo ko doon mu yet wa mu daan yor su mu taxaw ci minbar ci xutba der ba mu daan jullee léegoo léeg bu génnee te julliwul ci jumaa ja ak satal ba mu daan jàppee muy satal xañ yu weñ yi daan mag yi daan yor. Mm-hmm. ak yenn ci ay téereem leen na ci ay yërëm ku tedd ki moo doon lool lool te suba mu ñëw Touba loolu it amaana mën nañ koo jël benn jour comme am nañ temps ñu def loolu waxtaan mm-hmm. waaye daal ku tedd ki ñëw comme ni nga ko laajee ba mu ñëw ci dëkk boobu fekk fa loolu ma la wax muy cedd googu ak lëndëmaa googu euh, euh, mu mu xaar ci tànk tubéyam def ci lu lu lu lu nga xamante ne si ñaar ña yoroon ay riit yi foo xam ne fu xew masaan am ñoo ko doon toj mm-hmm. mu def leen ay bilaal ndax seen ay baat yu neex Euh, maanaam ñaca ñaca doon ay ceddo te te am mbooloo mu topp seen gannaaw bu ñu joxodee ñu def bu ñu teree ñu bàyyi mhm. mu def leen ay ay ay ay ay xalifa ba gox buñ nekk ñu fay wote lislaam kaa yi mam deku li leen wuy si lii nag bu ko nit bëggee si ku ñëw fekk nit ñu nekk ci benn mbir plus de quarante ans cinquante ans soixante ba soixante-dix ans xam nga ne géej nañ ci bëgg leen cee génnee du doon woñ seen loxo du mbeñaate du saaga waaye nag Euh, euh, euh, la sallallahu alayhi wa sallam yore woon ci dundam loolu rek ngay mën a yoon pour mën a peeg ñooñu hmm. mooy mooy mooy mooy ndal nga rasulullah yoroon nooy ga lewet wet ga ak neex a neex a jege ga te képp ku jaxasoo ak moom dootoo bëgg a bàyyi looy bëgg dem di ko bëgg di ko gën a bëgg te bis boo bëggee ba jot dëgg dëgg kanay moom mooy bëgg nga lislaam lii la sall lii ku tedd ki alaaji Cheikh Al Juma mais ba mboolem la fa nekkoon ci ci ñaawteef mais ba mboolem la fa nekkoon ci ci ci ceddoo mu delloo lépp mu di lislaam wax naa la. Mhm. Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëw ci àddina li li ngeen di wax yéen tubaab yi seul contre tous la woon maanaam moom kese moo fi doon julli Seydina mu dund fi ba am fi ñeent fukki at yàlla soo ko wax ne wateel nañ mhm. nañ dugg ci lislaam bi mhm. sallallahu alayhi wa mu dund fi à partir de ñeent fukki at ba ñaar ba juróom benn fukki at ñaar kon am nouveau gi ñaar fukki at ak ñett maanaam vingt trois ans la ko woote mhm. ci vingt trois ans yooyu sallallahu alayhi wa ba muy génn àddina cent vingt quatre mille musulmans la fi bàyyi sallallahu alayhi wa sallam cent vingt quatre mille ñu nga xamante ni am na ay am na ay président am li ñu doon wax chef de canton jamono yooyu am ay ministre am ay notable am ay nit ñoo nga xamante daf leen fekkoon ñu amoon pouvoir lañ nekkoon waaye mu meet leen naxtaan leen ba dugalee ci lislaam la mu yore woon nag moom sallallahu alayhi wa sallam mooy lu ku tedd ka yoroon mooy fa bima rahmatin min allah linta wala kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlika ila axir aya hmm. lii daal la ko tedd ci eh, waxtaan neeg ña ña ña sekkoon tund wa naxtaan leen meeb leen ba muy génn àddina ña fa gënoon ña fa gënoon ñemee poob akum peccak yu mel noonu eh, eh, ñoom ñoo taxawal lislaam ba mu génne àddina ñoom ñoo ko xeexle jàppale ay doomam ku tedd ki njëkk ko njëkk a doon xalifam muy eh, Seydina Mouhamadou Rasulullah muy Alhaji Amadou Fadal mhm. ba mu génne àddina ña fa nekkoon ci cedd googu ñoom ñoo jàppale kooku xeexle ko ba lislaam bi fii mu toll tey Ñett Àddu am ci am ci bu yaatu yaatu yaatu ci biir réew mi mhm. ñu ànd ko ak fa nekk tey xalifa muy sunu waajur El Hadj Mouhamadou Aïcha moom El Hadj Cheikh Aljuma ànd ko ñaari rakkam mi fa des mu ñetti Seydina Muhammad rasulullah ku tedd ki di seetee ci kaw suuf muy El Hadj Mouhamadou Aïssa muy xalifam El Hadj Mouhamadou di rakkam bi topp ci moom El Hadj Mouhamadou Al Hassan ñoom ñoo fa nekk ak njaboot ji ñuy nab nabi di yëkkati di teg lépp rek ngir diine sallallahu alayhi wa sallam bi ñëpp mën cee jot. Mhm. juñu amoon na ay ay ay ay relation ak yeneen kilifa diine yi fi nekkoon. Mhm. bu ma la si laajoon bu ñu doon ak maanaam ay taalibeem tey bu doon. parce que nag dañ naan murid lañ dañ naan tijaan lañ dañ naan xaadir lañ wala dañoo lu ñuy wax. ay xaadir lañ. waaw ah. fa mu jàngi alquran ci ci dëkku la mu dekk mu nekk fa ba mu am garab bu ñuy wax alpha ci tijaan maanaam ci xaadir boo demee ba am garab bi sëñ bi làmb ba mu yëg ne fa muy fëlëte moom fa muy waxtaanee yaa ngi fay ñëw dafa lay seexal moom la ñu wax seexal ci ci ci tarixa xaadir hmm. wala ci tarixa murid waaye bu dee ci tijaan alpha lañ koy tuddee ku tedd ki euh, ci fa mu jàngi alquran ci sëriñ bu mag boobu mooy alpha Ousmane jox na ko du tiijaan mu doon ko joxe ba mu doon fa alpha ba daara bi mu njëkk taal ci dundam ba mu koy taal boobu mu ngi doon tijaan waaye nag comme que euh, nitu xaqiqa maanaam wali yàlla bu am yenn dimension yi tarika tënku leen Mm-hmm. déedéet mm-hmm. gis nga Cheikh Seydil Hadji Malick mii ngay dégg wala euh, Barhamis mii ngay dégg Cheikhul Khadim ak ñu mel ne ñoom mm-hmm. tarika tënku leen ñoom buñ demee ba yore benn tarika wala yore benn wird di ko di ko joxee amaana njaboot gi seen gennaaw ak lay ñëwee ëllëg la ñuy protéger maanaam ñu mën leen ci benn sommet xamal la ne yow fii ngay jaar boo bëggee nga fële mais ñoom bu ñu seen biir néeg dara tënku leen Euh, topp bi euh, Seydi Hadji Malick wala Cheikh lislaam tënku bi ñu tënku ci ngiru se euh, mbiru imam Malick tekkiwul ne ñàkk xam leneen lu uuteeg loolu te muy dëgg te muy péngu wala ci bàyyi mm-hmm. waaye ñàkk bañ a bañ a féewale njaboot gi ak xam dëkk bi ñu dëkk dafa am ndoof mi muy taalibe Barhama Niass mu am rakkam bu bokkoon lay ak baay muy taalibe Seydi Hadji Malick léegi nag ñoom comme xamoon nañ njaboot boobu lañ njaboote te ñu xam ne ñoom li ñu bokkee noonu la seen ay taalibe di bokkee bu kii nekkee ngir imaamu Malick kii nekk Ahmad ibn Hanbal kii nekk leneen xam nañ loolu mënu ci ñoom dara ñoom ñu mm. dafay féewale seen i njaboot maanaam xelu moomu boobu lañu teel am ba ñoom ñëpp ñëwee dañoo tënk lu ci mbiru mbiru mbiru mbiru imam Malik maanaam pour nga xam ne mm. euh, ku tedd ci alxaaji Cheikh Aljuma ba muy jël euh, wirdu tijaan euh, mu jóge fa daje ak ki ma la wax muy Cheikh na sa Saadu Abi radiyallahu mm. ñuy nuyu sekk de passage xalifam bu tedd bi muy Cheikh Saad Cheikh Saad bu Taboula mu ngi ci biir réew bu sell ba ñu koy ñaana nit ayam bi yàlla na ko ci yàlla fekk te defal ko ci sutur defal ko ci barki defal ko ci ndam nit nag boo bëggee oyafal Euh, ñii sa gennaaw da leen di woon lenn parce que xamoon nañ dañ am taalibe bu tudd Cheikh Ndiaye xel mi yaatu xam-xam bi bëriwul te xelwul amaana sax yar mi tollul noonu kooku nag boo bëggee bàyyi mu mel ni dugg ci mbool bi lu mu mu ne def ko yóbbu ñàkk xam lan la war a nekk te day deewaale ñàkk xam ci lu mu ne hmm. te xam ci lu ne képp ko ko deewaale di di nga rëccu la nga daan dundee lu ñor yàlla la yàlla loolu lu ñor la nit ñi mu sàkk ci àddina bi yàlla ñor na ko lool ñu xam ne ku dañuy dee ñor na yàlla lool itam li sama sama maam Cheikh Ibrahima Sakho doon wax mu ne nit bu la yàlla gannaaw bala yàlla sàkk nga ñëw ci àddina bii ba nga mesure xam fi xàmmee war ngaa mën a gestu ba xam yow ku la fi indi lu lu am solo la ñëw naa maa ngi fi waaye man ku ma fi nga dàq loolu ba xam dëgg-dëgg ki la fi indee kan ba noppee bu yem ci loolu fexeel ba xam kan moo tax mu ma fi nga loolu nga daj si dina Muhammad Rasulullah nga xam ne moo tax ñu indi la fi ba weesoo ci loolu nga jéem a xool ba xam ndax man dama fi nekk éternel wala dama fi bàyyi ko boo càmbaree ba yëg ni da nga fi jóge war ngaa mën a xam boo fi jógee foo jëm mag ñi nag ñeenti question yooyu dañ ñu ko trouvé moo tax ñu doon dem ñu benn sommet. mu boo ñëwee xamal yow ab xaadir nga mm. yow boo ñëwee xamal yow ab tijaan nga yow boo ñëwee xamal yow ab murid nga waaye nag loolu du solo si li am solo mooy dañ lay dañ lay dañ lay ñëkk xamal ne fexeel ba yow xam ne yow ab jullit nga mm. te keneen koo gisati muy ab jullit kooku mooy sa mbokk léegi nag duggaat biir néeg bi nag loolu waxtaanu biir néeg bi mooy tarifa bi xaadir laa tijaan laa murid laa loolu yëfi biir néeg la mais pénc bi wala ëttu kër gi loolu waxtaanu waxtaanu doomu bàyyi la. ñëpp ay jullit la doom ñëpp ay loolu rek moo nekkoon solo si loolu moo waroon ñu diviser ko ñii doon ay xaalis ñii doon ay murit ñii doon ay tijaan waaye la ci lañ ca bëggoon rek mooy yow nga xam ne ab jullit nga jullit mooy sa mbokk ci réew mi nga dëkk waa réew mi ñooy say mbokk léegi nag boo noppee boo delloo sa biir néeg nga waxtaanee sa tarixa parce que fi tarixa dafa nekk mbir mu complexe ba nga xamante ni képp ku bokkul tarixa boo ko déggee nga dingal ko. yi hmm. fi tarixa moo demee noonu. yi fi tarixa nit ki nga xam ne yàlla dimbali na la nga juddu fekk say waajur ne ci tarixa bi wala nga dem ba màggee ne ba màgg xammee xam ne man tarixa bi moo ma neex moo ma doy nga nekk ca keneen ku dul kooka bu ñu toogee di waxtaan yi fi nga am lu sa lu sa sa xol mënta mënta nangu. Hmm. loolu yàlla moo defee noonu doomu aadama. Hmm. léegi nag boo bëggee am jàmm boo ñëw ci yi. waa seen info wala nga toog TFM wala beneen télé boo mën a toog nga déggal ma ci tur bi eh, eh, boo bëggee am jàmm bëgg noppal dangay ngay waxtaane li ñëpp bokk mooy maam bi mooy Muhammad Rasulullah kooku mooy maam bi kooku moom moom ëtt bi mu doogee ci ëtt bi nañ ko waxtaane léegi nag bu ñu àndee dugg sunu sunu ëttu kër dañu ma dañu waxtaanee sunu sunu sunu maam bi nga xamante ne sunu baay bi nga xamante ne sunu maam bi nga xamante ne moom moo jur sunu ñoom baay bu dee Touba nga toog waxtaanee Seexul Xadiim en général bu dee euh, euh, Kawola nga toog waxtaanee ku tedd ki Cheikh bu dee Guet Arame nga toog waxtaanee Alxaaji Cheikh Juma Ba waaye boo demee ba it bu dugg sa ëttu sëriñ sa biir kër bi nga xam ne moom la am ci dëkk bi tuddal sa sëriñ moo fi mën moroomu yaay mais nag waxtaan yi nag bépp boo ci jël nga waxee ko fa dul palaasam cooree allah mm-hmm. bu ñu ñëwee ci ki nga xam ne mën naa sax fa lay daalee samay laaj moo ko utu tey moo utu euh, El Hadj Cheikh Diouma moom fële ca Guet Ardo kooku kanal ak naka la téye li nga xam ne mooy jël bi. muy El Hadj Mouhamadou Aïcha. muy ki nga xam ne damay wax toujours ne euh, la am lu ne la ca gën la am muy ki yàlla dimbali 1974 ay magam. ay magam nga xamante ni si fépp fooy làmb nitu yàlla boo foro ne sa loxo daj leen muy Cheikh Sidi Ousmane mu nekkoon xalif dixième xalifa alaaji Cheikh Aljuma ci jamono yooyu mu àndoon kook ay ay rakkam Cheikh Saad bu alaaji Cheikh Aljuma Cheikh Taalib Boy alaaji Cheikh Aljuma Cheikh ak mboolem koo nga xamante ne yaa ngi nekkoon euh, doomu alaaji Cheikh Aljuma euh, te te fekk woon jamono boobu 1974 ñu def ko imam ci seen kanam ba deux mille euh, deux huit deux mille huit du moins la nekk xalif alhaji Cheikh Al deux mille huit tey si tey mu toofa nag uuf njaboot yi façon uufiin wa nga xamante ne euh, euh, man miinuma ci ëttu kër yi ngay fekk xalif général uufee noonu ñi mu bokkal ki leen fa teg uufee noonu ña mu dëkkal ci dëkk ba mu dëkk donte na bokkuñu ci ci ci ci ci ci ka leen fa teg maanaam bokku ci moom meen bokkuñu ak moom deret waaye dëkkandoo bu yàgg yób yóbbaale leen mbokk ba lépp lu mu yëkkati lu mu doon moom mooy kilifa bu ko neexoon lu mu yëkkati lu ne biir néegam lay toog woo ñenn ña ko war a jiitee mu ne leen def leen ko te defee leen ko nii ak nii ak nii waaye modeste ak toppandoo bi mu toppandoo sallallahu alayhi wa sallam ni ko yàlla waxoon ne del del diisoo maanaam donte na man maa la maa la yónni te xam nga lépp lu ma la wax lool mooy li amit del diisoo ak ak nooy wet ga nga yàlla tàggee woon sallallahu alayhi wa sallam li ma la wax sànq mooy fa bima rahmatin min allahi linta lahum mhm. euh, jikko yooyu mu mu fees dell ci ku tedd ki alhaji Mouhamadou Aïssa mi nga xam ne tey moo fay xalifa uuf ay rakkam alhaji Mouhamadou uuf uuf ay doomam mooy nuy waale passage euh, porte parole bi nga xamante ne si moom mooy ay tànkam doon ay loxom doon gëtam muy Cheikh Aljuma Ba porte parole tedd kooku euh, waaye pour ma ma ma ma tontu la ci question bi nga posé. Mm-hmm. naka la naka la yore naka la toogee ci jël bi ak naka loolu la yoree dëkk bi. Mm-hmm. mooy na Seydina Umarul Faaruq yore woon Medina kese kott rek képp ku ca ne fépp foo mos a dajeeg nit ku mu mën la nee dëkk wala taalibi Cheikh boo yëgee ci moom lu uutee. ak na rasulullah waxee woon rek ci domaine bu mu mën doon xamal ne bu ko doonee yi jaxasoogul ak moom ku tedd ki toujours ay waxam toujours ay waxam mosuma dégg te dafay def ay tournée léegoo léeg dafay dafay jël ay oto yu bëree bari dix quinze ba ba nangami oto mu yëpp njaboot gi dugg ci biir àll bi jël ñax ku barke boobu nga xamante ni moom la doon nee ci waajuram doon nee ko ci ay magam mu ànd ko ay rakkam ak ay doomam ñu dugg ci biir àll bi xëppoo ay ndox ci ëttu taalibe yooyu bàyyi bàyyi fa ñaq woowu fanaan ci seen lal yooyu bàyyi fa barki boobu lekk seen ndab yooyu bàyyi fa barki ba ëtt bu mu daan jaar ba tournée di soo a commencé ak léegi ñaka doon dam ak ña doon fekk ñépp xam nañu fu mus a jaar uutee na jamono boobu ak tey ngir xam na ni moom bu toogee dañu ñëw waaye déplacement bi ñuy def di ñëw seen ñaq lay doon seen barke lay doon bu ñëwee duñ duñ tàllal ko loxo mu ñaanal leen ci boolee moom mu moom ci boppam yóbbaale njaboot gi ci biir ci biir euh, ëttu taalibe yi xam na lañ ci la cay màngee ci ay barke du yem ak mu toog xaar taalibe yi ñëwal seen bopp. Mm. toujours muy def lu mel noonu ànd ko ak njaboot yi waaye saa yu bu demee euh, dafa bëri loolu la ngay dégg ay sëriñ di toog di di xaw a mel ni ñuy ñuy ñuy campagne ngir ngir ami taalibe ndax xam nañ instant bi ñu toll nii taalibe marchandise la marchandise bu seer la ci Sénégal. waaw mën naa ne sax euh, ñenn ci sëriñ yi ñenn ci sëriñ yi seen commerce moo gën a dox commerce ñay nekk Santéné wala ñu nekk Sandaga que ñu nekk Sandaga ñu nekk Santéné ni ëpp ci ñoom bu ñu commercé ba ba ba seen marchandise jar ñoom ci bopp seen bopp dañuy ëlbatiku doon ay marchandise dem ci sëriñ si ñoo nga ñoom ñooy commerçant yu mag yi kon xam nga ne taalibe bi mooy martis bi gën a seer jamono biñ toll nii ci Sénégal raison pour laquelle képp koo fi gis mu mu mu xaw a xaw a feer ijji rek fi mu ne nii itteem bu dara lu dul doon sëriñ waaw parce que xam nga ne koom-koom bi gën a dox tey ci kaw suuf mooy doon sëriñ barki Demba Ndiaye seen coupe du monde bi gis nga site internet fépp foo tourné kenn ku ne ngi doon sëriñ. Hmm. kon yore di wax lu ko neex dañuy gagné na temps la ñuy dugal waaye nag. comme que yàlla moom toujours moom mooy décider borom mbir mi waaw <laughs> décider ay mbiram ay mbiram te nag xam nañ réew mi ñu la Cheikh Tidiane Sy Al wax naan réew la moo xam ne dañuy fay nit kaay nga nax ma te xam nañu bu boo toogee ci micro yi nga waat def say affaire xaaj yu ne Sénégal dafay dóor nangam bu tombee ak loolu rek yow moom ci durant boobu moom ma nga daa lekk lu ne nag nit loolu ñu loolu la ñuy wër ku leen nax mm. te sallallahu alayhi wa sallam noonu la jibarkat bu waxee dëgg sax dafay fen jibarkat boo ñëwee ci moom mu ne la suba nii lay demee boo xëyee demee noonu sax waxul dëgg ku tedd ji daal na mu toogee ci jal ba mooy xamal nit ñi toujours ne julli dafay julli te dafay liggéey ci dooleem dundee ñaq toujours kaddu bi def ko sax man damay faral laa saa ma nekkee gerte àndu du ma toog ñaari fan yu ma euh, raamul ba ci ay ay tànkam ñu toog waxtaan bu dee benn cinq minutes waaye toujours da nga yëg ne boo nekkee ak moom avant nga ñëw ci moom ni jamono yi di bëri ay accessoire bëgg bëgg niñ bëri ak xelu ndaw li mu ni nga yenoo àdduna boo ñëwee moom nga toog ci tànka waxtaan ak moom benn cinq minutes boo jógee da ngay sentir oyof sentir moom waxtaan bi mu doon waxtaanal ni mu yennee di nga yenoo woon mm-hmm. ngir delloo bi mu lay delloo ci yàlla ak gëm loola ne li yàlla tudd ne moom ngay am ci sa dund bi munoo mu ko waane ba am ci lu ko yëg munoo fee teel a jóge itam ba doo ko yëg ku tedd ki yoree nii dëkk bi e, e, e, muy jiite jumaa ji ba tey fi may wax ak muy deuxième xalifa ci biir Sénégal ko nga xamante ni si yëg nañ mu nekk imaamu ratib te nekk xalifa général bu weesoo Cheikh Abdou Ahad wala Cheikh Abdou Khadir ki ci nekkoon xalifa Cheikhul Khadim te nekk imaam bu ut bu jógee ci moom moom laa yëgaat ko nga xamante ni doon na imaamu ratib di nekk xalif général waaw ba tey si tey mu ngi eh, xuus ci kanam minbar bi def ay xutba yu méngoo it ak jamono moo tax keroog maa ngi la koy wax fokk ñu jéem a xool naka ngay defee sa programme boo ñu ànd ci ëtt ba. incha allah def benn loolu dina am solo te pourquoi naa ne loolu loolu dina am ci daal di la nekkee ci dëkk ba waxtaan ak ndaw yi di soñ njaboot gi. di ci tool yi di béyal boppam bu jullee takkusaan te ku ko soxla boo bàyyi ba mu jul takkusaan boo ko gisul suba nga ko gisaat nit ku fegu la nit ku dummooy la wallaahi azim la ba nga ne actuellement nii am na quatre-vingt-dix ñu koy ñaan yàlla yàlla fekk ay fanam waaye ba tey si tey xutba ya muy def ci jumaa bi moom moo koy bindal boppam te du sori la net boo ñëwee ci ëtt ba boo fekkul ay nit toog soxla ko di waxtaan ak moom doo ko bett mukk te bett koo mu yor tiiri di jàng dafay liir fu mu toll takkul ay loole nee na ma loolu bokkoon li ma daan dagal sama borom mu yàlla ma yàlla may sama dund ak di lu yàgg yàgg yàgg yàlla naay mën di bindal sama bopp damay soxla te tiiri yi ma teg fii war koo liiri yàlla bu bu gàtt nga lu bët yóbbee ma du ma ko mën a gis. yàlla xam na ko bind ya muy bind ci xutba ba ko bindee ba pare même boo ci jotee pour nga lii ko yow gone lu lu lu lu si lay dool ci ndax bind ba na muy jege ak moo koy bindal boppam moo koy liiral boppam loolu nag muy tawfeex nga sa borom def mu am benn wax bu mu waxoon jàppatuma at bi mais xam naa ba ma koy wax depuis boobu ak léegi lu mu gàtt gàtt war na mot seize ans ba dix-sept ans mu ne woon ci jamono boobu ba mu koy wax mu ne juróom fukki at ci gannaaw trois heures du matin musu koo fekk mu tëdd du benn jour ba nga xam ne léeg mel ne man léeg-léeg mu yeewu fajar góor góor mu yeewu fajar rawal benn ñett ñeenti fan nga yeewu ay dix heures góor góor wax benn jour yeewu fajar mais nee na lu mot juróom fukki at jamono ba mu koy wax ak léegi nee naa la moom lu seize ans mhm. seize ans ci gannaaw boo ko teg boo ci tegee yeneen cinquante ans nee na trois heures du matin musu koo fekk mu tëdd. Hmm. du benn fan. lam daan wax booy àgg foofu ma di leen daan dafa doon xamal nit ñi ni li bëgg ci ci am yàlla dee su ko am ci di sama baay li ñu bëgg ci am yàlla dee su ko am mën a diw li ñu bëgg ci am yàlla duñ ko amee fudul ci jaamu yàlla. Hmm. ñu koy ñaanal yàlla yàlla fekk ay fanam. su hmm. tëdd ki maa ngi leen ñaanal yàlla la yàlla dundal. wallaahi azim wax naa ko ko ci bu gàmm gàmm gii passé ñëw mhm. ci kanamam ñuy waxtaan moom yàgg ma ne ko papa de man xam naa ne sama yëg-yëg bëriwul waaye ni ma yëgee sa dund ji yaa sa rakk yi ñu mu amee solo ci hadara bi bu ko ñëpp yëgee woon noonu bu ñu mënee ñaan yàlla mu wàññi suñu at yokkale leen sax nañ ko def yàlla yàlla dundal leen yàlla yàlla fekk ay seen ay fan ba ñu ba ñu sut seen i waajur uh, seen mboolemi waajur ay fan barke Seydina Muhammad Rasulullah ak mboolem xalifa yi di bu dikkee réew taaxaw yasi macha allah mm-hmm. xanaa rek looy jeexale looy daanelee kon incha allah muy mm-hmm. ñaanal mboolem ku dëkkee àddina yàlla na yàlla defal sutura mm-hmm. jaaykat yi nam na bi bëgg lu mu dundee seen i njaboot yàlla yàlla fekk leen ci te barkeel ko may delluwaatee ñaanal ku tedd ki alhaaji Mouhamadou Aïcha yàlla na ko yàlla may yeneen téeméeri at yu dooree tey bu ñu àggee ci téeméer ba ñu toog waxtaanee ko ba xam naka la yàlla di defee mboolem ku dëkkee eh, Sénégal te ngay xalifa te yor yoral yàlla lenn ci ci ci njaboot ngeen ji yal na yàlla suturaam yal na yàlla barkeel may nuyu sama soxna bi nga xamante ne si euh, euh, bu weesoo ñi ma fi tudd ki ma fi tudd mën naa leen moo ma gënal ku dul moom. waaw loolu la ci am solo sax soxna <laughs> allah <laughs> ñoo suñu genn wàll. waaw moom man sama genn wàll man mooy sama lépp. macha allah waaw macha allah soxna Abibatu yaayu Seydina Muhammadu Rasulullah. dëgg la ma dina seeral ne ku la bëgg laa. ndeysaan salaamaaleykum.